suñu mbokk internet yi salaamaaleykum yéen ñi safo El Vision Média man sista Eva ma dellusiwaat fii ci seen émission débat du jour ñu dalal fi benn ndaw boo xamante ne étudiant la euh, mu ngi yëngu ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar dama koy daal di bàyyi rek mu daal di présenté wu wax moom mooy kan. waaw euh, asalaamaaleykum allahuma rabbi shrah li sadri wax yassir li amri wahlul uqdatan min lisani xaw qawli maa ngi tudd Serigne Mbacke Diop dëkk Samsam 3 nekk benn ndongo fële ñuy wax université Cheikh Anta Diop nekk tamit ci licence 3. waaw Serigne Mbacke tey ma dalal la ci seen émission débat du jour ñu war fi soulever trois questions yoo xamante ne yu am solo la. Mhm. nga xamante ne instant bi euh, actualité la fii ci réew mi muy Sénégal. Mhm. Euh, benn bi ci jiitu muy la société sénégalaise. Mhm. dañu daal di dugg nag dans la domaine politique. bu ñu fa demee daal di dem ci la mort de Fallou Sène muy étudiant bi nga xamante ne rey nañ ko fële ca université bu mag bi di Gaston Berger bu Saint-Louis. Euh, troisième question bi nak ñu koy jeexalee ak polémique bi nga xamante ne instant bi mu ngi lëmbee réew mi muy ci kaw Idrissa Seck sëñ Mbacké euh, naka nga gisee la société sénégalaise hein, dans le domaine politique. merci beaucoup waaw société sénégalaise moom niñ ko gisee. Mhm. ni on a une société pathologique si je parle d'une société pathologique mhm. on a une société purement malade. Mhm. ndax dañoo nekk ci jamono joo xam nit ñi dañuy xool ku ci nekk lu la arrangé rek ngay def. te société warul demee noonu. ndax ku ci nekk da nga war a yor benn comportement boo xam ne dafa war a doon comportement bu rafet. Mm-hmm. mag ñi jàngale nañ ko suñu devanciers yi jàngal nañ ko suñu prédécesseurs yi jàngal nañ ko. Mm-hmm. comportement yi ngi gis nag dafa nekk ay comportement yu bizarre. Mm-hmm. ndax société waroo ci dund di comporté nu la neexee. di def nu la neexee. da war a am au moins. benn genre modèle boo xam ne nii ay modèle de référence ñu ngi fi. si nous au moins prenons au moins le cadre. le Cheikh de Bamba. Mhm. ou bien El Hadj ici. Mhm. et tant d'autres on peut citer. Mhm. mais dafa y société boo xam qui la dafa nekk société bu pathologie société malade. comportement yi ñu fay bizarrement. bizarre si buñ ci système scolaire vous mun le ko wax. buñ tamit domaine société la société culturelle. vous nañ le wax. buñ duggee tamit ci domaine politique bi tamit. mun nañ ko wax. surtout mais en ce qui me concerne en premier lieu. société de ñu nous ni mu askan seetluwuñ ko. Mhm. léegi Sénégal boo xoolee. Mhm. nit ñi dootuñ dund bu baax. Mhm. ñii. ñu ngi sàcc. ñii ku ci nekk daal yaa ngi def li la ñor ak li la intéressé ba pare li ngay def jàpp nga ni mooy lu baax. te société warul demee noonu. effectivement boo ñëwee ci domaine politique. xam naa sa ak bu ñu fa dinañ ci mën a wax bu baax a baax. boo ñëwee ci domaine bi yëpp. ni jëmal léegi da ngay gis koo xam ne day jékk ba jàkk di wax ci loo xam ne nii au moins du domaine am. on a bel bien dit qu'il y a un penseur qui l'a dit. domaine mhm. son champ d'application en dehors duquel il n'est nul et non avenu. Mhm. Imam Al-Ghazali wax mhm. est dans son domaine mais parfaitement ignorant a la Mais concerné. un maçon. en même temps. je au niveau de la police. c'est incompréhensible donc na nga lijjanti sa problème. Mhm. kii nga bàyyi ko mu occupé li mu mën a occupé. noonu laa gisee société bi. ok man société sénégalaise bi man su ma koy classé damay wax ne dañu perte suñu valeur. effectivement parce que tamit euh, sa ndaw boo koy tàggat yaakaar naa ne à ba bas âge lay doon. Mhm. mais doo bàyyi ba mu nekk magum jëmm nga mhm. bëgg ne da nga koy euh, jubbanti. day fekk c'est trop tard daal. bay wër na mbuus euh, wéy na mbuus comme ni ñu koy waxee en wolof. merci beaucoup li ngay wax nii sax. dafa nekk loo xam ne da am solo. au moins cinq mois bu fi

Il a dit qu'une connaissance de l'histoire locale s'avère indispensable, mhm. mais à elle se reste insuffisante. Elle doit être complétée mhm. par une connaissance beaucoup plus élargie de l'histoire humaine des autres cultures, mhm. nous ouvertissant laquelle notre perception même des choses risque d'être être, sinon partielle. Mais qui a une connaissance de l'histoire locale, elle doit être complétée par une connaissance beaucoup plus élargie. Connaissance beaucoup plus élargie, non. géographe, histoire, leneen ak mi ngi sinon laquelle risque d'être étriquée si on ko deful dañuy perte suñuy valeur mhm, mhm, valeurs. ñun am ay nous mhm. avons am culture te suñu culture yooyu non dafa nekk lu baax ak lu am solo ba pare te muy lu ñu nangu ndax nit ki moom boo amee xel mu sell rek war ngaa mën a lu baax merci ok daal dañuy daal di dem dans la domaine politique euh, parce que tamit en général euh, politiciens yi man dama leen di blâmer d'une part. Mhm. parce que ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci bopp mhm. euh, politique bi bu ñu demee ba nga xamante ne ñoom nguur jaral na leen yenn yi ñuy def parce que récemment rek gis ngeen sacrifice yi ñu fi doon def. man du ko du ma ci génne politiciens yi parce que tamit en général bu élection yi di ñëw ci ngay gisee cas yooyu. parce que tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo la war a jiite ñoom ñooy mm-hmm. dem bay def naka sa dul noonu mm-hmm. ñoom seen intérêt personnel rek lañ fi lañ fi kii daal mais en général du ñu xool intérêt peuple bi te mm-hmm. yaakaar naa peuple bi ñoom ñoo leen fi teg boo may développé ci loolu lan lay doon waaw ci domaine politique xam nga li ñu ci wax dafa war a leer nit ñi Aristote le, le disait c'est l'art de gérer la cité mais comment on gère une cité cité boo koy gérer dafa am ay valeur yoo war a mën a am. yow da nga war a am benn modèle boo xam ne da nga ko war a imposer pour cité boobu noonu. Mm-hmm, mm-hmm. mais fi mu toll nii politique amatu fi. Mm-hmm. xam nga la moo fi am. c'est-à-dire de débusquer le problème de d'autrui. tey jii mooy lan comme supposons. Lamine Coulibaly nekk sama xarit. ñu toog man ak moom di plateau. bokkuñu parti. soit exemple laa xam ma nekk PS. moom mu nekk PDS. au lieu ñuy politiser au moins li nga xam ne ni mën nañoo jëmal kanam ku ci nekk day jéem a ŋàññi morom di soulever ay problème te loolu politique mhm. c'est l'art de gérer la cité mhm. mais ña ñoo war a gérer la cité mhm. Rousseau même le disait en disant que chaque peuple chaque gouvernant a les dirigeants qu'il mérite loolu même sax nekkul sax ci gouvernant même ci quartier dafa imam bi bi lay jiite jàppal ni moom nga mérito ndax na moo tax moom la mérito yow mënoo ba doon imam bi ndax suñu borom moo ko jiital. Mhm, effectivement. Mhm. Mhm. waaw loolu tamit euh, bëgg naa nga nga waxal ma ko en anglais parce que euh, dama dégg ne yow ku taxaw anglais. nga macha mais man na question yi du la ko wax en anglais. yow yaa koy euh, def rek développé ko. parce que tamit la société sénégalaise bi ak dans la domaine politique bi. après dama bëgg nga defal ma ci tuuti en anglais benn résumé rek. waaw xanaa jëm cee def benn genre briefing rek. société sénégalaise bi. waaw just to that. wages in Senegalese society. Mm-hmm. But for the time, what we have noticed, mm-hmm. this is something very complicated. Mm-hmm. At first, I'm gonna just analyze the thing, the problem. Yep, we are in a society which is so bad because the way that we behave is not great. I do not appreciate it because it's so bad. Me, if I were in my shoes, we have just to follow the tradition or the culture. What is tradition? Tradition is just something that our elders have shown us the way, but we had just to follow the way. Mm -hmm. But now in Senegal, mm -hmm. people they behave bad. Mm -hmm. Senegalese, mm-hmm. the way that we behave is mm-hmm. not good. We have just to change it. Mm-hmm. We have just to follow the tradition. Because following the tradition is just the best way we don't have the solution. We have just to follow the tradition is the best way. Mm -hmm. And if you follow us, mm -hmm. it's gonna be well. very good. Mm-hmm. <laughs> ok suñu deuxième question muy euh, li nga xamante ne moom moo ñeel euh, étudiant bi nga xamante ne rey nañ ko temps yële. Mm-hmm. Euh, ci université Gaston Berger bu Saint-Louis muy Fallou Sène. Mm-hmm. dama bëgg nga dikkal ma ci tuuti parce que en tant que étudiant yow lan nga yëg bi ñu reyee sa naataango boobu nga xamante ne boobu nañ ko fële ci Gaston Berger. waaw la mort de Serigne Fallou Sène. mais pour soulever ay points. Mhm. avant la mort de Serigne Fallou Sène. Mhm. am na ñoo xam ne tamit ay étudiants lañ woon. Mhm. rey nañ leen woon. ku ci mel ne exemple Balla Gaye tamit prenons le cas de Bassirou Faye. troisièmement bi ñu ngi am suñu benn naataango muy tudd Serigne Fallou Sène. lii mën naan daa yàgg université. kon tey ji bu ñuy am. nekkul lu ñuy bett. waaye pour wax nit ñi. nañ xoolaat suñuy valeur. université. tar na tar boo xam ne nii. boo demee sax di xol Idi yi. Mhm. ko ci gis dang koy yéene sarax. effectivement ndax tay jii nii. Mhm. ki war jité jiite monde bi. Mhm. en 2020 soit en 2030 mille ngi ci biir université soit boo limul Gaston Berger. di nga lim Dakar. wala nga lim benen université Thiès. te tamit Seigne Fallou seen liko dal ni kay metti en tant que au moins suñu frère. ndax boo xoolee waa këram. Mhm. ak entourage am. Mhm. ki nga xam ne da bàyyi say moyens yëpp. Mhm. yebal ko école. lan nga ci jublu. ngir mu tekki surtout nag ba mu nee ba dugg bi université. ndax bu génnee. li ngeen njëkk a xalaat. mooy le modèle au moins sénégalais li ñuy xalaat société bi. war naa am liggéey dimbali njabootam. ma dégg ci nag. am na ay ndimbal yoo xam ne nii dem na seen kër. pour au moins ndimbal defalul kenn. non non ndax loolu noonu. suñu borom la ne wala xaddu karam naa ba neex lim nekk ne nit suñu borom lim bind nit moo ko ci gënal. Mhm. te nit nga jël ko. Mhm. surtout sa morom nit te ka koy rey. Mhm. doo ko gis. mu dem mais nañ topp enquête yi. dëgg la policier. rôle mooy lan. protéger nit ñi. loolu la nga naan safti sécuriser nit ñi. mais tamit nag amoo droit rey. non nest pas mais nag nit ñi tamit dañoo war a bàyyi tamit. lu ñëw tamit ñu aggraver la situation. ndax domaine bii nii nii dafa am ñoo xam ne au moins war nañ ci wax dafa am ñoo xam ne tamit waruñu ci wax. effectivement yaa ngi dégg. Mhm. Mor suñu faalu seen bi daal mhm. méttiwul nañ ko. Mhm. mais buñ bu ma sañoon. comme tant d'autres ñeneen ñu koy xoolee même situation ni ngi koy xoolee. ñu révélé enquête gën koo topp. xam ki ko rey. te tamit ñi nga xam tamit ñi ngi seen biir. ñu waxtaan. université nekkul lieu boo xam ne nii dañ faa dem. di fa rey c'est la culture du savoir. on est là-bas pour acquérir de la connaissance. loolu la mais contrairement de tuer les gens. man sama xalaat bu gàtt bu ma ci yokk rek euh, mhm. ku ne xam ne ne université foofu la ñuy tàggatee ñi nga mhm. seen seen oto te tamit boo xamante ne day répété rek mhm. parce que depuis temps Senghor la woon ba président bi xamante ne moom moo fi nekk récemment kon luy euh, répété la rek te tamit du am benn suivi dañuy wax naan def nañ ay lii dañuy topp enquête bi mais du am benn suivi parce que tamit euh, foo xamante ne dañ fay tàggat ay ndaw ñi nga xam ne dañoo war a yor réew mi ëllëg man dama yaakaar ne mooy lenn li jalousie la quoi parce que yow ki nga xamante ne yow deful dara nga ñëw di ko boom ci lan lay laaj benn 36000 boo xamante ne yow la kii ya nga fay sànni lacrymogène ya ngay sànni foofu noonu mhm. trois fois lay multiplier pour ñu mën ko defar ba pare loo ci xamul te tamit mhm. man ñiy def lii dañoo xaw a lii de parce que tamit demal fakk euh, séance gars yi mhm. duñ fa dugg xoolal ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi nekk foofu imaginaire est-ce que ñiy boobu mas nañ dugg foofu mhm. mosuñ fa dugg parce que xam nañ ne ñooñu ils sont bien préparés dañu mhm. préparé wu à 100 pour cent mhm. affaire bi daal doy na waar doy na waar genn doy waar te bu ñu waxee ñu jël ay millions dem dénk seen famille ñu def nii mu bàyyi mu sedd damay jël exemple ci le cas de Fodé bi muy policier bi ñu rayoon te ñu accuser les jeunes de nu mu tudd Colobane yi jàpp leen amul ñooñu amul lu ñu leen torturé wul pourquoi étudiant yi ñoom tamit ay doomu aadama lañ yor seen famille tamit nañ waxante dëgg mais ñoom jàpp nañu tamit maanaam idée bi ñu am. Mhm. mooy étudiant. Mhm. dañoo jàpp nañoo ñoo sonal policiers yi. Mhm. te or tel n'est pas le cas. ndax policiers yi ñooy accéder. ci seen milieu. effectivement imagine yaa ngi xeex ak say tàngoo am nga lu na naqari ñoom am na lu naqari ñu ngi ciy xeex. yow amoo droit accéder fi ñu nekk. effectivement ba au moins nga leen di ah gouvernement Sénégal daal waroon war na xoolaat bu baax. parce que tamit éducation moom joxu ko ak xam comme on le mm-hmm. dit parce que tamit li ñuy laaj suñu suñu alal la ñoo ko moom. Mm-hmm. Euh, yéen étudiants yéen yéen a ko moom kon nag dañ leen ko war a jox suñu troisième question muy le cas de Idrissa Seck. parce mm-hmm. gis nañ polémique bi instant bi bari na trop. xalifa généraux yi ku ci nekk yow yaa ngi ñëw di indi say vidéo di def say témoignage di wax dama bëgg nga indi ma ci tuuti. waaw exercice ma encore. en ce qui concerne fi mu toll nii. Mhm. daanaka ñëpp moom la ñuy waxtaanee. Mhm. mais Idriss Seck. Mhm. ñu bëri xam nañ ko ci domaine politique. effectivement ndax ci lañ ko xamee sax laa mën a wax. mais nag dañoo war di fàttaliku dafa jàng. effectivement. te dérapage verbal. mënta ñàkk. imam bi nga xam mooy jiite ci jàkka ji. yenn saa bu wax wala loo xam ne nii ñëpp dañuy toog. seen gémmiñ mais li mu def. def na lu gën a rëy. te lo xamni ni mhm. c'est un geste à saluer. muy tuub. tuub effectivement. djeglu mhm. ndax don na kilifa daraja bi mu am. Mhm. ci domaine politique. daraja bi mu am ci yalla xomako lolou mi nga àgg ci coobare yàlla. waaye daraja bi am ci politique. en tant que Idrissa sek toogaat ni djegal len ma. drapé woon naa waaye maa ngi tuub. waye dañ ko tuubal am na ñoo xam ne nag. ay yeekatu fitna la. effectivement n'est-ce pas. yee fitna. baaxul. ndax yee fi na dafa doon loo xam ni nii après li muy jur. doo ko xam. ku baax ka suñ ab Lahad Mbacké période ama ay tashin dafa bind benn affaire ndax fi naan war naj naa mi sari ama tashin wa fitnatin wa dararin wa batashin di bind loolu ndax fitna gi mais ñi nga xam ne nii ñi ngi toog di wax naa Idrissa Seck bu defee lii génn ci islam ak génnul ci islam yow ku génn ci islam waroo ko xam ndax yow wóoru la en tant que boo xam musulman nga ki génn islam. Mhm. am na xam ne ñuy toog télé jarul may jaar ci tur amul sens. Mhm. toog télé naan daa war a sax fase jabaram. xoolal wax jooju ni mu rëy mhm. te yow chaque jour nga def loo xam ne nii nii. société moom la ñuy coow. ba pare dem làqu ci kër tarixa yi. tarixa yi nag li ñu war a def mooy. recadré waat nit ñi. delloowaat nit ci yàlla. xam leen lan mooy diine. ndax gis naa benn euh, apport bi sëñ basir Abdou indi ni bala ngaa doon mhm. murit da ngaa doon jullit mhm. te bala ngaa doon jullit mhm. da ngaa jub mais li mu def tuub na jéggalu na nda yaakaar naa ni jéggal yàlla moo ëpp solo ko jéggal nit ñi ku ko jéggalul sax affaire la moom ko ci nit ñi sax jéggalu suñu borom la ci sax. waaye nag nit ñi tëj seen làmmiñ n'est-ce pas ndax au moins juum na ñoo ma fi di ko défendre ndax politique intéressé wu ma mhm. waaye damay wax li mu def ndax geste bi mu def mhm. moom ëpp solo muy tuub mhm. c'est un geste à saluer à saluer Sénégal nag ni ñuy politiquer dañ ko xoolaat bu ñu bëggee damm say laaf dañ damm say xam nga dafa am benn sociologue Raymond Boudon mu ne à chaque fois que l'individu fait quelque chose c'est parce qu'il a un intérêt à le faire mu ne les bons acteurs ont de bonnes raisons d'agir mais li tax mu agiré noonu jóge ci woon ni jullit laa te murit saadix laa bëgg a doon nit ki mën ngaa doon murit te doo doon saadixiin mooy ku dëggal baat bi mu ngi jug ci Abu Bakrin Siddiq waaye li mu wax am na ci droit mhm. ba ma doon jullit ba pare mhm. ay engagement personnel am la mu yore mhm. la yore ni jullit laa jugewaat ni murit laa te saadix laa bëgg a doon tey bu jugoon ni chrétien laa bëgg a doon kan moo koy fekk këram di ko rey murit saadix la bëgg a doon mais nit ñi tamit dañoo war a xam ne tamit incité wuñ ci point boobu li ñuy incité lu ci bëri. Mhm. mooy baat bi mu wax. Mhm. c'est-à-dire lii laa bëgg a doon. Mhm. am na ci droit. man noonu laa ko gisee. te it bu fekkee bëgg na ko doon. ki nga xam ne ni moom moo yar tarixa bi yàlla na ko nangul njëbbal te loolu ci am solo. pour le cas de Idrissa man tam dama ci indi benn apport bu ndaw boo xamante ne parce que tamit Sénégal gis nañ ne bu élection yi di waaj a ñëw ku ci nekk eh, da ngay jéem a kale sa morom pour ñu indil ko benn kii te tamit hmm. ñi siy indi ay kii en général di wax ñu si bari di eh, hmm. Hmm. def seen i génn ci média yi di feeñ en général buzz dañuy wut comme on le dit mais tam dafa mel ne li ñu cëraloon ci waxtu mi ngi pareetul mi ngi jeex dama lay daal di rek nga tàggatoo en wolof et en anglais comme tu le dis waaw ñu ngi bu baax. xam ni au moins ki fi ñëwoon di waxtaan. étudiant la mais tamit élément la tamit ci El Vision Médias. Mhm. te ñoo fi ñëwoon au moins sabablu. Mhm. di def ay au moins ay débat di dégg. Mhm. lépp loo xam ne ñu juum nañ ko yàlla ko suñu borom jéggal. lépp loo xam tamit njëriñ la yàlla ko suñu borom def ay yiw tas ko si société bi. Well, the one that was just sitting back there was just here in television media. Mm -hmm. to do a kind of broadcast, it means just we just Eva mm-hmm. and the guys, but I just how can I tell? Just uh, giving hands to Les Boy and Harim mm-hmm. and people, mm-hmm. and that was just a pleasure to be here. I was so pleased to be here, and I was just so content to be here. Just thank you, right? ñu ngi sant bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah dañ sori ci anglais bi. waaw uh, yéen ko gisandoo woon ñu ngi woon ci seen émission mm-hmm. débat du jour ñu mm-hmm. dalaloon fi ki nga xamante ne moom yaakaar naa kenn dootu ko fi présenté parce que uh, fii lay liggéey ci Elvision Média ci la mm-hmm. bokk comme man ni ma bokkee ci Elvision Média yéen a nekkoon nag ci seen émission débat du jour dañ leen di jox rendez vous uh, beneen yoon rek ak beneen gan. on se capte au revoir. merci beaucoup.